Ah, eh, eh. gis nga lii rek jàng benn jàngat rek lañ ci am quoi muy euh, caat li ngeen gis ci tele bi ah gars yi di ko euh, di ko li ñu koy wax na sax maquillé ko ngeen gis lu ne c'est un homme te bu waxee nga xam ne am na bagage intellectuel kon donc ñi ni dañ bàyyi ñu ñuy nax te xam ne carte mooy fal carte mooy folli euh, le 24 ñu dem voté ji fal ki nga xam ne yaakaar nañ buñ ko dénkee suñu alal dinañu ko sàmmal. le 24 ñu ñu fal ñaar ñiy dem deuxième tour. parce que bu ñu kenn gëmloo ne benn tour mooy am nag. Ah, loolu moom na leer benn tour mënut am ñaari tour mooy am allah kulli xaal kenn mënu fi gagné premier tour. rang bi seere na trop kenn mënu fi gagné premier tour donc deuxième tour aussi bàyyi leen ci xel parce que peut-être ay 21 juillet euh, mars lay le 22 mars 24 mars bàyyi ci xel tamit c'est un combat Premier établi, la première étape c'est le 24 février et joxat encore dox dajé deuxième tour. di ah. on ensemble.